diwaanu Touba Mbacké nekkoon tey li nga xamante ni mooy sële bu yoon yi ñi nga xamante ñoo di patriote ya fa féetee diwaanu Touba ak Mbacké la ko wër ñi nga xamante ñoo féete foofu te déposition fi li nga xamante ni moo di seen carte d'identité yi wala sanction li nga xamante ni moo di seen lieu de vote yi wala sax ñu mënul woon woote biñ bind loon ñu inscrit te ñu inscrit woon ci liste électorale yi ñoo ñële seen carte d'identité yi génn ci ñu war ñu war pour ñu war koo dem jëli waaye nag na ngeen xam ne foofu sa arrondissement bu ndaam daal tey fees dell dell dell ak ay nit la def ndax ñi nga xamante ñoo di patriotes yi pour ñu dem jëli seen carte d'identité yi ñoom ñooñu nag ginnaaw bi ñu yëgee information boobee nag carte d'identité yi génn nañu rek la ñëpp faq daal di ko si doone si ginnaaw loolu sax la ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko joxe woon digal ne kii di Bassirou Diomaye fay nañ ko ne kon mu mel ni kat ñoom ñooñu nag seen carte d'identité yi maanaam ñëw na ci waxtu waaye ñëw na sax fañ ko gën a soxlaa ndax dinañ mën a parrainel kii nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye nekk pour l'instant candidature bu parti bii di Pastef la Patriote.